wax nit ñi xam loolu sénégalais yi xam loolu image yi nga xam ne bii moom lañuy ñuy wane fii la ñuy wane fële euh, doy na waar ba jéggi daay sincèrement te te te dëgg la du dara lu tubaab bi moom tey ci ci ci coono bi xale coono yi xale yi di daj à partir dañu départ rek euh, ñoo xam ñu déparé Ndar ñoo xam ñu déparé euh, Mbour ñoo xam ñu déparé Joal fu ñu mën a déparé Euh, à partir dañu dugg ci yenn dëkk yi rek il suffit que nga commencé traverser côté Libye wala yooyu rek maanaam euh, foofu moom sa bakkan xaj na ci lépp te li ci ëpp dañuy ñàkk seen bakkan mu nekk affaire boo xam ne bii lu graaw a graaw a graaw a graaw vraiment je crois que moog mbas mi euh, bu ñu doon bu doon affaire wu grade ñoo tolloo grade sincèrement rien que nag du doomu Sénégalais rek mais doomu doomu Afrique yëpp ñu ngi koy def. li ñuy tubaab bi di woon foofu c'est des images yoo xam ne mais mais man damay mujj sëgg pas damay ruus mais daf may metti ba nga xam ne euh, parce que problème la boo xam ne bi mënu ma koo régler mënu ma parce que problème la boo xam ne bii euh, nit ki jël décision xamoo jour ba mu ko jël et tout ça dem bu ñuy dem doo ko xam bu ñuy départ doo ko xam da ngay rek gis benn gaal boo xam ne bi def na plus de quatre cent ou cinq cent personnes ñii di tëmb ci ndox bi ñii dañuy nekk ay jigéen yu yu ndeysaan yoo xam ne dañuy nekk ci ay huit mois ay bébé yoo xam ne ñuy tëmb ci ndox bi yooyu yëpp des images yoo xam ne yi jeex dafay jeex donc euh, vraiment côté immigration bi moom loolu moom gouvernement bi bu ci mënee jël ay matuwaay ñu seet ban solution lañ mën a def pour ñooñu nga xam ne bii mais pourtant xalis boobu noonu ñuy dépenser mais c'est de l'argent mais mais à partir de cinq cent mille francs je crois parce que loolu noonu pour nga jël gaal yi ba àgg Lampedusa Lampedusa bi nga nekk Italie waaw bu euh, war a jaar fi nga war a jaar yëpp ba ñëw Libye danger bi yëpp mi ngi commencé foofu donc imaginez vraiment ñi ci dee ñu ci bëri ba léegi gisuñu leen parce que mun nañu leen gis parce que réer nañu ci ndox mi mais imaginer xale bu tuuti trois ans wala deux ans di tëmb si digg géej mais fii yi ñuy wan ñu mën a wan la ñuy wan mais fee tubaab bi da lay lépp ba pare boole ay wax yoo xam ne je les connais très bien xam naa xam naa ni muy waxee euh, vraiment ñoom am na ci ñu baax nag am na ci ñoo xam ne affaire bi ça les fait mal mais am na ci tubaab yoo xam ni ñoom pour ñoom lii mais vraiment regardez c'est des Africains ils sont comme ça mais affaire boobu noonu war nañu mën a seet vraiment benn solution bu ñu mën a seet bu ñu mën a dimbalee xale yooyu ñu ba a jël gaal yi parce que musiba naar laay bi ciy xew moom ba dëgg yàlla image yi ñu leen woon fii ak image yi ñuy woon fële du benn kooku moom maa leen ko wax metti na nag ay image la yoo xam ne ba pare nag boo demoon tey jii nii Europe muy Italie ak Paris ak France feneen na ci yem dëkkuwaay yi Calais rek la fa am gis ngeen ko ça fait plus de trois ans kale euh, bi ngi nekk benn frontière la entre la France et et l'Angleterre ça fait plus de trois ans gars ngi foofu comprendre nga donc euh, tu donc euh, pour te dire que affaire yi jaxasoo na benn jaxasoo boo xam ne sincèrement il faut ñu xool vraiment ñaan président ñu ñu ñu xool ban solution la ñu mën a jàppale ñooñu parce que ñooñu bu ñuy départ fii ay ay cinq cent mille parce que loolu mënoo njëgu njëgu fay bi dafa cher mais te te léegi damay dama dégg ni léegi sax sa yaay moom moo lay toppatoo xaalis euh, nga nga nga nga nga dem jël gaal bu njëkk ba sax yow yaa doon ñafe sa bopp kii mais léegi sa sa waajur moom mooy jëkkati ay natt wala affaire yooyu jox la nga dem risque yi donc xaalis boobu xaalis la boo xam ne bii euh, koo xam ne mën nga joxaat mu dem dee donc euh, loolu nañ ci bàyyi xel affaire bi doy na waar affaire gaal yi moom. affaire u gaal yi moom sincèrement moom affaire bu moom metti la Boubacar vraiment maa ngi lay remercier ci laaj boobu mais affaire u gaal yi moom doy na waar mais il faut tamit aussi ñu dimbali nit parce que sinon di ils vont continuer loolu moom c'est sûr am na ñoo xam ne ñi mënoo leen wax ba ñu dégg parce que loolu mooy seen solution solution la boo xam ne bii c'est entre la vie ou la mort ñoom dañuy àgg dem ou ñu dee te bu ñu àggee tamit aussi balaa ñoo réaliser dara coono ba fa nekk ak toroxal bi ñu leen di toroxal ñaaw na waaw waaw Europe bokkul ak fii